muñul sey muñ la sey neexul donc liñuy duggal ci noppam ñu koy préparer ku góor ki luñ koy wax nang ko muñul nang ko muñul nang ko muñul ça veut dire que kële day def lo xam dañ ko wara muñul yoy ay éléments sociologiques la yo xam il faut ñu concorder ko ak diiné ji pour mu gëna yomb waaye nak euh, comme niko Cheikh Ahmed Tidiane ci doon waxé fi ci Sénégal mom bu fekkone ni aada ak diiné dañuy bëré aada dina ko yenu ba ci ko dool ko ci souf motax euh, bu jigen ñu topé lool rek mën na am ay tension yu bari ci couple bi bu ñu toppee yow recommandation yi nga def donte baxna euh, respecté na ko ci point de vue de l'islam mais il faut ñu wax réalité bi am moy goor ñi ils s'attendent comme niko ko maire bi waxé ils s'attendent à ce que jigen ñi gëna souple je pense que même sama jigen bi loolu lay wax mais responsabilité bi ñu jox jigen ci sey bi est-ce que disul ci mom yow sociologue nga xam nga bu baax est-ce que loolu li ñuy xaar ci jigen ëppul ci mom non dafa dis parce que jigéen presque mon mo yor. Euh, stabilité euh, mariage wa mom mo yor stabilité mariage bi. lu bëri lu bëri ki mom la dépendre. mais loolu ñun la suñu élément culturel la suñu valeur la ça ne veut pas dire que dafa nek deug société bu nek mom mo xam ay valeur am na koy changer. au fur et à mesure. gis nga oustaz euh, point de vue bi mu développé tek ko sukkandiku ko ci l'islam point de vue bu bax la. mais ñun ñep xam nañ le point de vue bobu c'est pas le point de vue dominant. ci réalité bi ci bir couple bi ba tax na. am na ku jigéen ku koy gëm rek jàpp ne noonu lay taxawee ak jëkkëram day indi ay tension man

ne ko non sa jabar ji da jital lutax ngay def li yoyep yëpp tant wuñ ko au problème bi day day demeurer voilà absolument wa il a raison lool loolu la fofu le problème bi comme li wax éducation de base la luñ ñu luñ ñoo lu ma mën wax luñ ñoo yaré la depuis bas âge fi nek ni ko oustad ñu ko waxé ñëpp xam nañ ko mais on l'applique pas comme niñ ko waxé liñ gis ci dans la réalité man mom li gis mom la gis moy euh, dañuy japp ni jigéen ñoo wara def ñoo wara jël les premières initiatives ñoo wara juk dem ñoo wara a je peux dire régler le problème ñoo wara réagir lépp dafa war a juge euh, jóge ci jigéen ñi man déjà man euh, ñi may consulter mën naa ni sama quatre vingt 90 pour cent ay jigéen lañ voilà te pourtant problème bi day nekk loo xamante ni boo ko xoolee lu ci bëri am na lu lu ci bëri mën naa ni sax ci góor ñi la parce que kuy jug comme ni nga ko expliqué sax kuy jug ñëw ci yow kooku euh, bëgg na solution kuy jug ñëw ci yow bëgg na sëy bëgg na toog donc loolu noonu mais en général ku góor ki dafay renfermer trop comme ku góor ki ku jigéen ki moo war a def lépp yow yaa leen di jox technique yi man maa jox stratégie technique dama lay accompagner euh, ba nga génn ci loolu noonu voilà mais da gis ne vraiment comme li mu wax ne la dama tongoo voilà expliqué la yow nga mm-hmm. jàpp ne jëkkëram moo am raison mm-hmm. moo am tort mm-hmm. jëkkër ji nekkul ci dëgg yow lan nga koy conseil voilà man xam nga man damay am euh, je benn programme bu ma établir man du joxe par benn ko soo dikkee soo waxee parce que tamit li mu waxee tongoo ay façon la te ji kenn ku ne ak situation tey yow yow mi tongoo euh, ak comme oustaz ni mu ko waxee ak ki nga xamanteni euh, je peux dire yag ngène wala yàggu leen wala yaa ko tànn tànn ko yëpp par exemple nombre de doom yi ngeen am euh, famille ngène nek wala lool lepp lépp dafa jouer situation euh, des jouer donc man il faut que ma dugg ci dara yëpp dañ ko war a non non non dama ni par exemple bo ñëwee ci man tey jii ah, nga ñëw consulter ma nga né ma dama tong ak sama jëkkeur déjà man il faut que ma ana def l'analyse ñu wax de la situation ah, ba pare très bien su mako ko ba pare par rapport à analyse de la situation ci laay défé programme bi parce que kenn ku nek ak fini ne ñëpp mën nañoo tongo mais ni may lijjantee sa problème du bok ni may lijjantee problème ki c'est pas possible mënut a nekk benn mais bo ñëwee en général euh, ni muy tourner autour de déjà su ma xamee euh, lan moy exactement parce que il faut nga identifier mu laa wax sànq il faut nga identifier fan la problème bi jógee pare soko identifier par li après nak damay teg ben programme léegi programme bi déjà euh, comme ku jigéen ki moo ñëw ci man ce qui est clair mooy euh, même bu fekkee ku góor ki moom moo tooñ wala moom moo def loo xam ne c'est pas normal mais il faut que man ma recadrer ku jigéen ki ba pare parce que tamit balaa ngay mën a baale il faut que li nekk sa xol mu xaw a mën naa ni wàññeeku ba nga mën a def action yu ñu lay def loo parce que bu dee da nekk tout le temps sur la je peux dire xol bu jeex tout temps yaa ngi am loo xam daf lay pour nga mën def action yi pour mën neexal wala pour mën changer situation du nek euh, du yom donc ma limay may def foko jéngi dama lay def li ñuy wax euh, gestion des émotions dama lay dindil par exemple évacuer négatif li ngeen dundul lu metti lepp dama ko évacuer ben test lay def ben genre genre stratégie bo xamé damay euh, évacuer tout ce qui est onde négatif yi ngeen doon dund teg xëcc comme on dit attirer le positif ba nga xam ne ko jénki woon li muy gis mooy côté bu baax bi lay gis il faut que ñu def loolu pare voilà ah. parce que loolu mooy tax moom après mu mën a wàcc bu mën a nangu parce que bu dee nit daf la tooñ pare nga war a retourner waat ci moom euh, di def ay ay stratégie pour euh, ngeen àndaat dafa metti waaw soumission lay indi te soumission dafa metti dafa metti mais men jaa bi mu mm-hmm. indi rek li olof di wax naan lu feeñ ci sëy nu yoo woon ca ngoro la kon est-ce que balaa ñuy dugg ci euh, ci sëy yi comme ni ko yenn sociologue yi di waxee mu war a nekk projet ñu war ci waxtaan yow loolu est-ce que gis nga ni mën na nekk solution pour tongooy bu amee tam mu bañ a yàgg. waa xam nga euh, waxu mag dafa mat di dégg lu nuyoo woon lu nuyoo feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngoro mais di nga ngoro ba sëy te doo am problème nga dem ba dugg ci biir sëy bi doo ci am problème di nga gis koo xam ne dina ngoro ngoro gu neex ngoro gu amul benn problème. ngoro gu amul xuloo amul xeex bëggante fonkante kenn ku nekk yàkkante gis sa morom ngeen dem ba sëy problème feeñ mais lu mu ci mënti doon waxtaan la ci biir néeg parce que tongoo ci biir néeg mën naa nekk mais mën naa bañ a nekk ndax ñaar ñi mën naa nekk ci naka mën naa nekk parce que am na ñoo xam ne am na lu seen xol mën a muñ am na ñoo xam ne seen xol mënta muñ di nga gis jëkkër ak jabar fanaan ci biir néeg rayante ba asamaan sa te ñi ci kër gi duñ ko kon loolu day indi sutura lay woote waaw duñu ko yëg man ngaa tongoog sa jëkkër àdduna sépp xam ne dangaa tongoog sa jëkkër dëgg la ñëpp xam ne yaa ngi tongoo dafa wax léegi wax bu am sens oustaz dafa ne nit mere ca àll ba ñëw ci biir kër gi sippi ko jabaram mais góor boo dee sëy ak moom sëy ak moom lu mat fukki at am njaboot war ngaa xam bu yëgsee li ci kanamam bu dugg see war ngaa xam li ci kanamam. am seetlu am seetlu booy ànd ak nit di nga xam li mu bëgg xam li mu bañ. Mm-hmm. te lii indi tongo mën nga koo daw. tongo nak dafa aram, ci digënté jëkër ak doom jabar ndax tongo boko ko defeek sa jëkër mu forcé la ba am la ci tongo bi du ngeen am doom ju bax dama daan dégg mag ñi naan doomu jëlagu lal doomu diggu lal mhm. doomu catu lal deug la xam nga jëkër teud ak sa jëkër mu teud ndar nga teud walu ni da ngeen di tongo mais jigéen day ñak jox dem fekk jëkkëram. waaw ah, waaw xam nga bu la sa jëkkër meree am nga loo mën a def loo xam ne nii bu meroon léegi léegi léegi day wàcc léegi yéene la lu ne mais nag boo rëyee ni duma ko jëkk a tudd bu ma tuddul duma ko tudd bu ma laal duma ko laal a ah, day gën a yokk rek te dafay dem ba ëpp say loxo. day dem ah, ba ëpp ay loxo ndax dafay dem ba dépassé la dootoo ko xam noo koy faje li nekk ci biir néeg bi ci biir néeg bi leen koy faje boo tëddeeg sa jëkkër bu guddee man ngeen a waxtaan damay dégg ni coowul guddi dafay rey góor coowul guddi baaxul mais waxtaanu guddi moo gën waxtaanu biir ëtt ndax boo tëjee sa bunt loo bëgg a régler ci sa jëkkër mën nga koo régler lii nga def ka tey neexuma bu ëllëgee bu ko def mu ne ah kon de bàyyi naa ko gis naa la nga wax nangam tey neexuma bu ëllëgee boo ko defee dinaa def nangam su ëllëgee da ngay daw loolu mu la waxoon. bu fekkee ni mbëggeel gaa ngi ci yow mais boo ma nee duut baaraam mën la duut baaraam. xale yi de ku leen rokkos ñu ñu dobin la ko moo taxit loo gis <laughs> xuloo guddi xuloo bëccëg takk bagage yi dem ñibbi <laughs> sëykat dafay muñ. boo bëggee am doom ju baax